bis bi dañ koy amal at bu nekk fii ci daara Aynu Maadun Jaaga di sant yàlla bu baax nag ci tawfiq ak yokkute bi nga xam ne suñu borom tabaaraka wa def na ko ci mais honorable mii bi nga xamee ne wax nañ ko bis bi moom mooy mu dagg ay itam yëpp ñëw ñu koy sant ci loolu di ko gërëm di wax ne nag alhamdulilahi rabbil alamin daara moo nekk loo xam ne ak loo am ay ndimbal ndimbal rek du te da nga ay jafe-jafe yoo xam ne da koy da ngay jànkuwante moom ndax daara ji tey soxla nañu forage comme ni nga xam ne noonu la ko waxe sànq forage boo xam ne bu ñu ko amee dañuy am jafe-jafe ndox waxtu wu nekk dañuy am jafe-jafe ndox waxtu wu nekk ba tey jii ma waxe yow dañu ut oto bu mag mu ñëw pour bu ndox manqué bu ndox manqué ñu ñuy duy ci maanaam euh, oto ndox boobu noonu kon loolu vraiment forage dafa nekk loo xam ne yittey daara ji la yittey dëkk bi la te bëgg-bëggu sëriñ bi woon macha allah. naka noonu poste de santé noonu la ko soxlaa ci dëkk ndax mbooloo mu toll nii fu ñu nekk di feebar ngay takk ay charrette sëriñ bi oto bi ko yàlla wërsëgal mu amoon benn oto bu mu demee ba nekk ci feebar bi dafa jël oto boobu ne def naa ko fu lillaahi jox naa ko daara ji ndax mbooloo mu nii fu nekk feebar dana am loolu leneen dana am kon su oto nekkul kon jafe-jafe day am kon vraiment poste de santé dafa nekk loo xam ne eh, yitte dëkk bi la waaye yittee daara ji la donc loolu tam ñu ngi ciy lancé appel jullit yëpp nag képp koo xam ne yàlla may naa kaar sa yow nga mën a ñëw def ko ci sa alal soo ko defee fay laa xam ne wa naka noonu itam yoon comme ni ko waxee ndax fii mbooloo mu bari ñoo fi ñëw boo xam ne ay junni junni doomu aadama ñoo fi ñëw te bu ñu wàccee fi bi jeexee ci Xelkom danañ dox lu mat 15 ci suuf si vraiment loolu tam ñoo ngi sàkku ci tey ñi nga xam ne ñoom yàlla teg ci bopp réew mi ñu jàppaleen ci ba yoon ni ñëw fi yan daaroo daaru minam li nga xam ne mooy dëkkub Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides ba fu mu fépp fu mën a àgg. waaw euh, loolu tam bëgg-bëggu daara ji mooy ay machine fóot ndax mbooloo mu toll nii fu ñu nekk te jigéen ñi leen di toggal bëgg boole bëgg di leen toggal ba pare di leen fóotal loolu ku ne xam ne ne métti na donc kon machine fóot bëgg bëggu daara ji ñuy lancer appel ci jullit ñi képp koo xam ne yàlla mën loo na la ko nga jàppale ñu ci ay machine fóot loo nga yàlla nag képp ku ko def fóot ni muy setale yàlla ko yàlla yàlla nekk footu say bàkkaar ba benn bàkkaar dootu ko amati ñëw ñaan yàlla képp ku ñu jàppale yàlla yàlla defal loolu yàlla balaa alamin waaw non daara ji moom sëriñ bi ba mu ko susee ba léegi ni ko suñu bàyyi si Ibrahima Xalil waxee léegi rek ba mu ko susee ba léegi mu fayokul kenn daal dafa def lépp ma jaanan mooy gratuitement kenn du fay waaw daara ji amul fay maanaam yi kon waajur bi daal bu ñëwee danañ la xam ne sa doom ji ab doom la war soo ko joxee yow la soo ko joxul yow la war nga joxe ko nga ñàkk ko jox nag moo yem képp sëriñ bi du tee li ko war ci njaboot gi moom daf koy def. plus de 400 personnes ñoo ngi ci ci ci daara ji ci jamono ji yéen yoo xam ne da maanaam njaboot gi ñoo yore seen seen lépp en charge waaw ñoo leen di dundal ñoo leen di fóotal ñoo leen di defal lépp macha allah. waaw di lancé appel rek ci jullit yëpp nag ci ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi kilifa diine kilifa aada yi ak kilifa diine yi ñu jàppale daara ji yéen nga xam ne ki ko sosoon bëgg-bëggam rek moo doon alxuraan yàlla dogal mu génn àddina ci weer yii nu génn waaye nag dénk ko jullit yëpp nag kon loolu nag dañ ciy woo jullit yëpp ñun jullit rek la ñuy lay la woo ñu ñëw jàppale ñu ci ci daara ji ngir liggéey bi mën a continuer comme ni ki nga xam ne noonu ko sëriñ bi bëggee woon loolu nag macha allah am nañ ci be kenn mu muy honorable député moom ñëw na moom vraiment ànd ak ñun ci li liggéeyu daa daara ji nar ko ànd ak ñoom ñoom ñi ngi ñaan yàlla lépp lu mu fi def yàlla na ko yàlla na waaye yaa rabbal alamin waaye di fàttewuñu aussi itam soxna Absa Dramé comme ni ñu ko waxee sànq ñu lancé fii forage mu toog fii ci jataay bi am ku mu woo direct euh, ancien directeur Cheikh Tidiane Mbaye ancien directeur euh, Sonatel mu ne moom ak njabootam danañ gasal euh, forage bu danañ ko def fii gasal ko taalibe yi ñu ñaan yàlla loolu yàlla leen ko yàlla nangul ñu itam li yonent bi waxoon rek keroog ba Ousmane ibnu Affan gasee biiru Ruumata yonent bi waxoon ne maa ami maa darra Ousmaanu maa maa amila baada hada liyam Ousmane du defati dara lu ko wàññi kon ñoo ngi ñaan ñooñu itam seen i yéen a yàlla ko yàlla mottali